planification ci mbirum yokkute wala ñu naan développement exemple le plan Sénégal émergent lii moo nekkoon thème leçon bi nga xamante ne jëwriñ gi dënk mbirum finance ak budget daal dina ko livré ñi di ay ndaw yu jàngee foofee ci école supérieure d'économie appliquée bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci bile occasion ministre bi daal dina fàttali lii di njëriñu planification planification dafa am solo te boo xoolee plan Sénégal émergent ci planification lu tëddee parce que plan bi daf ne fileeg deux mille cinq Sénégal war na am yokkute. yile étudiant daal dina ñëw seeni seen i mbëbët jëmle ko si ministre bi. dañoo am euh, c'est-à-dire problème mu pour suñu ndaw yi génn ren ñu jël leen. dañuy nekk di buuxante ci marché bi mën nañu war gën a valoriser waat école bi maanaam mayaat ko doole tabaxal ñu ay bâtiment yoo xam ne dina mën a tey ñu ne a ah, fii de ay ingénieurs yoo xam ne ñooy jàppale dëkk bi ñoom ñoo fiy nekk di fi jàngee donc ñuy ñaaxaat autorités di leen ñaaxaat ñoom tamit que ñu mën a jàppale ñu ci maanaam bu ñuy dem sur le terrain logistique bi nga xam ne dañ koy soxla muy matériel yi ñuy liggéey yi leen bëbët nguur gi dina ko saafara a gaawee wax nañ fi ay mbébét wax naa ko noté nañ ko te incha allah dinañ ko toppatoo dinañ ko jéem boole ci budget 2024 ba nga xam ne incha allah yaakaar nañ ne dina sotti salle bi moom équipé nañ ko dañ ko équipé def ci jumtukaay yu yu bees yi saalu informatique la ñu rénové ko. lu ëpp benn waxtu la bile leçon inaugurale daal di duré Mamadou Moustapha Ba daal di rek ñëwaat réalisation yu nguur gi def lu jëm si mbirum plan Sénégal émergent.